gis-gis bi mënoon na nekk sujet munoon na nekk tem mais comme dañ doon waxtaan ay waxtaan yoo xam ni thème mu société la yu am njëriñ ci dund ni askan wi politiciens yi ci ginnaaw lañ leen indi tey ay ca coow yi bëri na ci langue politique bi ñu tàmbalee ko réew mi Idrissa Seck wàcc na Déthié Fall ndax Déthié Fall moomu la mu doon wax démb la waxaat vision Macky i wul jam ñaaju génne nañ ko assemblée la ko waxaat APR tamit. ça chauffe euh, gis nañ Mame Mbaye Niang cong yi mu cong Mahmoud Saleh yamoo kit euh, Aly Ngouille euh, échappe à un putsch jàng nañ ko ci yéenekaay yi tey jii nii ay meeru Linguère yu ñu dajale woon foofu fii fii dakaar kon lañ leen woo réconciliation Barthélémy Diaz maître Moussa Diop ay maire ah il faut il faut aller voir le journal c'est c'est sorti aujourd'hui Euh, mooy source A c'est dans source A falaa ko jëlee réconciliation Barthélémy Diaz maître Moussa Diop aussi ñi ngi ci doon waaj wax boobu ba léegi mais locasion nu manqué kon dëxëñ nañ loolu yëpp ci gis-gis bi ngeen def ci tànn sa bu la neex rek ñu commencé Cheikh Yérim bismillah xam naa ni moom politique bi di ci sawar ci mbirum réew mi ay ca bismillah mais waaw dafa am lu ma seetlu bi fi Macky Sall ñëwee ba léegi mhm. cest diir que leader bu dugg ci Macky sàll rek. bi hmm. lay daal di tas. Hmm. gisoo. kon pour yow Déthié Fall génn yi segooy segooy aussi dañuy dem boo xoolee. Euh, dugg ci nguur gi moo taxale tanoor ak xalifa Sall. Hmm. dugg ci nguur gi moo taxale. Moustapha Niass ak Gakou. Euh, mu ngi taxale fi mu toll nii euh, Idrissa sa ak ak ak Déthié Fall mais kaawu Déthié Fall aussi da koy analyser quand ci politique. xam nga ñu bari dañ naan voilà lan moo tax de Fall nekkoon fi tey lépp et puis ñuy ñëw di nommer ministre bàyyi ko. Mhm. il faut dire que ñu nommer ministre yëpp c'était cas très très politique. Mhm. boo xoolee Ali Saleh boobu ñu li Linguère la dëkk. Mhm. tey boo génnee Aly Ngouille Ndiaye te xamoo après boo ko génnee nu muy def. est-ce que day yàq est que day bëgg a génn il faut nga am koo xam ni da koy contenir. politique mooy loolu. donc tey doo jël Déthié Fall jox ko place Ali Saleh ko que waa Linguère la te alisale dañ ko war a nommé renforcer ko pour que bu Ali Nguy Ndiaye géddee mu mën a jël place am loolu aussi xam nga xam nga politiciens yi dañoo xereñ nag moom dañoo xereñuy nag ci defar réew waaye xereñ ci ci ci appareil moom xereñ nañ ci Mame Mbaye Niang Mahmoud Saleh waaw loolu c'est un peu la gazette du palais hmm. xam nga Mahmoud Saleh dafa def sorti boo xam ni sorti boo xam ni ñun ñi def analyse politique faaw ñu taxaw ci hmm. daf ni euh, dafa wax ñaari affaire daf ni Macky Sall ak Ablaye Wade ñi ngi wax en continu. Mhm. réeroo wuñu voilà waxaat ni ñi génn ñëpp amuñu benn légitimité xam nga loolu wax yu wax yu am solo la ci politique bu fekkee da nga koy analyser léegi boo waxee ni. surtout période boo xam ñi ngi suscité naan am na benn projet de loi bu ñuy préparé pour Karim Wade am am amnistie boobu dinañ ci ñëw beneen gis-gis voilà yëpp xajuñu woon ci voilà nga taxaw wax ni Ablaye Wade ak Macky Sall ñi ngi wax ku mel ni Mame Mbaye Niang nga xam ne c'est un de feu de Macky mhm. xelam mën na cee ñaaw oui comprendre maanaam enjeu politique la yoo xam ne ni képp koo xam ne nii fokkoo nga ci mhm. kaawu Macky Sall tey Mahfouz Sall wax wax wax loolu du la neex mhm. donc noonu nga koy jàngee ci politique ayca waaw Barthélémy Diaz Maître Moussa Diop très rapidement rek dañ ci wax. waaw man damaa jàpp ne Ousmane Sonko ak ki leen jubóole voilà ki leen jubóole moo jaaxal nit ñi. Mhm. parce que Barthélémy Diaz Moustapha Maître Moussa Moussa gis na ne ay politiciens lañ Ousmane Sonko nag dafa mës a jaay benn xalaat ni moom bokkul ci système bi. Mhm. maanaam du politicien li politiciens yi def du ko def. te boo xoolee nii politique politicienne la fi def d'ailleurs sax dans son propre camp maanaam ñi nga xam ne nii ci moom lañ far mm-hmm. loolu moo leen di gêner mm-hmm. maanaam naka la Ousmane Sonko bokkul ci système bi bari def jëf joo xam ni mm-hmm. jëfu waa système bi la maanaam clientélisme politique la mm. bref abou euh, ci première bi mooy li ma doon wax rek démocratie interne ci parti politique yi xam nga chef de parti fii ci cas yi bu Déthié Fall xam nga le président Idriss Seck dañ ko jox ñoom gouvernement parti texte yi ñoom Déthié ñoom it ñëpp ñoo ko joxoon même texte yooyu la usé woon bi muy tànn Omar Gueye ak Omar Sarr ak ñiy dem ci gouvernement bu njëkk même texte yooyu la dindee ceer na mhm. Bocoum ne Déthié yow mi yaa may demal assemble mhm. ci même texte yooyu partem joxoon ko aussi si lañ ko joxaate mu dem waxtaan ak Macky Sall ci même texte yooyu la tànnee premier ministre mi ci même texte yi la ne leen lii mooy sama ligne donc képp koo xam ne ne yaa ngi ci biir parti bi boo démissionné wul soo demee fële wax lu waroog loolu mooy la nga woote woon mhm. man ñoom ñi plié ñun li ñu naqari ba ñu bàyyi politique bàyyi parti politique mooy l'absence de cette démocratie mm-hmm. am chef de parti bi texte yi ñoom ñoo koy jox te moom Déthié ma nga fa woon te ñooñu bi ñuy dem te mosu koo ñaxtu mu yoon ci ligne bi mm-hmm. donc pour man foofu loolu loolu laa fa gis mm-hmm. c'est à lui de démissionner ou de rester la mu muñoon wala la mu bokkoon ca ña doon dem mu accepter ko fii cette fois yi mala ci ban da ngay seet rek bu la bu la ci neex tànnal ci ci bu la neex la on est pris par le temps seet seetal c'est que lii la waroon doon mais mais ni ma la wax ah, quand on arbitre entre politique société je quoi parce que Déthié ak mais Déthié Idi daf ko mais du woon rappeur non mais Déthié Idi daf ko trahir quoi parce que moi li ma jàpp si Déthié c'est quelqu'un qui a été fidèle à Idi jusqu'au bout Mm. à la en fin de compte euh, idi lii la ko fayee. Mm. Bouba. waaw je pense le en tout cas sujet réew mi moom. Mm. Euh, si si peut-être deux semaines euh, pour man Idrissa Seck i la posé plus d'actes que PS ak AFP par rapport ak ma ak APR. c'est comme si euh, officieusement réew mi ak APR dañu. bu roog soow mi waaw bu roog soow mi que dootul dootul dootul coalition cest à que euh, maintenant ah waaw fusion la ba pare je pense que boo calculer dëggantaan euh, wax naa leen am na pour man am na lu des booy bi nekk Qatar fële normalement déggoo li Mahmoud Saleh wax ah, en tout cas man depuis année bu ma koy wax loolu moom moo si moo si moo ci moo ci moo si am solo maintenant fi politique tool hmm. wax naa ko fi laa dee pour man gars yi dañu teg seen balance rek ku ne ñu teg la xool ñaata nit nga am xam nga li ma la bëgg a bu ñu nee ah kii de am na principe am na loyauté mais ñaata nit la yor ci ginnaawam gars yi xool ne ah bëriwul de gars yi ne teggi leen ko teg fële moom moo fi indi euh, mooy li Yirim doon wax euh, Aly Ngouille Ndiaye fële ñu indi fa benn waayu réew mi. Mhm. loolu moo lay wan ni quand réew mi et APR euh, finalement nañ ko. buñ ko doon buñ doon tuddee APR ak réew mi. bu ñu doon jaxasoo man genre tur lay nekk. <laughs> après réew mi noonu lay tudd man du ma après mi. man du ma du analyse politique comme ñoom Yérim mais damay raisonner politiquement ci affaire dëcc bi. Ah. j'aimerais bien taxaw ci. finalement yéen ñëpp boobu ngeen. waaw parce que bëggoon naa dem deuxième Papis moom kii pour bu bu Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ah, ok man bu dëcc bi laay commencer d'abord pour dire que pour man Idrissa Seck na bàyyi xel bu baax ci dëcc na bàyyi xel bu baax parce pour man politiquement il est balèze pourquoi je dis qu'il est parce que le fait que mu rapporter les propos mm les armes de guerre de son leader mhm. te taxal mu nekk opposition di conforter sa position dans l'opposition mhm. loolu la baamtuwaat kooku moo delluwaat ànd ak kamu doon mhm. man sama interprétation personnelle dama ne Déthié n'était pas d'accord sur le départ de Idi en fait le retour de Idi euh, vers vers vers non laisse-moi dire je fais ma je voilà s'il te loolu la bëggoon. il était pas d'accord xëy na mënul wax Idrissa Seck ànduma dem mu def geste boo xamante ne incontour c'est pas possible mënuñu installer un président euh, conseil économique social environnemental tey dans les trois semaines qui suivent nga taxaw wax tout ce qu'il disait contre le pouvoir. nga taxaw actuel textuellement et dans une institution de façon solennelle. xam nga Déthié il est structuré intellectuellement bien structuré. donc man li may jàngat si loolu mooy dem bi ba mu jotee Déthié bëggul dem te mënu wax waa ji mënu ànd ak yow mu def benn njombe bu ndaw politiquement boo xam dañ koy génn dañ koy génne c'est ce qui est passé il se victimise il a toute la lecture il est un héros pour ceux qui sont contre le les, entre ça c'est c'est pas l'analyse politique mais c'est le Sénégalais man non man non man ma wax mais Déthié aussi a dit que mosul bëgg bëgg poste waaye mais en tout na le contraire mate surveiller la parce que xam nga lu tax euh, de facto xam nga euh, politique amul vide hmm. amul vide c'est-à-dire que base communicant la hmm. fi ñu toll nii Déthié bu génnee ci conditions yi hmm. bu defaree yëf yi. dina am poids électoral. dina am ñu mu yóbbaale. ay ca daaw de miin man man man ñett yi nga wax yëpp moom laay jël ma dëxëñ ko. ok joxe sama réponse kon euh, dama jàpp ni politique fi mu toll nii la taxoon mu jóg. Hmm. fi mu toll nii sunu politiciens dañ ko dévoyé. Hmm. parce que bu ñu nee woon politique da nga dafa nekkoon ko xamante da ngay ñëw engagé wu. Hmm. pour les affaires de la pour askan bi. maintenant c'est au gré des intérêts des uns et des autres. moom moo fi am tey neex na la. nga am noo doxale suba par exemple sa intérêt fële nga am neneen koy doxalee beneen bu nga xamante moom la may woon également mooy Macky Sall la mu waxoon. Hmm. réussir na ko. réduire je vais réduire l' opposition sa plus simple expression il a réussi na PS. xam nga tas na AFP. Ah, tas na PDS. ah tey jii tey tey jii mu ngay dem mu ngay dem mu ngay dem. mi ngay tas réew mi <laughs> li nga wax rëy na de. léegi <laughs> laa ko wax de ma ne ko tas réew mi nga wax de. parti tas Pape Djibril ñu déglu Pape Djibril alors Déthié fal je pense que li Yérim wax ne il faut le surveiller mais c'est c'est-à-dire que homme politique la boo xamante ni euh, coow yu bari yu politique politicienne doo ko ci dégg hmm. à l'Assemblée nationale su fekkee ne mën nañoo compter ci ñi nga xamante ni dinañ élever un peu euh, parole ci ci parole publique hmm. euh, bu am solo bu am qualité di jël en charge aussi les préoccupations des Sénégalais di ci wax ci li nga xamante ni moom la ci mën dans une assemblée boo xamante ni avec une majorité bu ñu xam mu ngi def na ci bay na ci wàllam maintenant la conséquence rek moom mooy mooy tey jii il est encore dans le parti s'il quitte le parti est-ce qu'il va quitter l'Assemblée nationale est-ce que dafay perdre li nga xamante ni moom mooy kii yëpp loolu tamit xëy na beneen conséquence lay jur boo xam dina am yeneen développement Euh, ci kii bi mais je continue aussi di gëm ne euh, Macky il n'aime pas un allié fort moi je mm. pense que il adore les alliés faibles mm. lu ñu la gën a affaibli gisoo coow li fi mu ne nii du ci dugg day dem toog jàpp ñàmburam mm. parce que peut-être un allié fort bu continuer di def liggéeyam de terrain bu continuer di animer ay parti politique am d'habitude da lay occuper ba doo tal lool le Idrissa Seck actuellement il donne des gages à Macky mm-hmm. c'est-à-dire que loo ko gën a jox gage pour ndax ndax boo fàttali ci discours am conseil économique social nee na bëgg naa bi ñu koy wax ndax SG bi dafay jóge yooyu dana dama koy maintenir euh, ndax kóolute gi nga xamante ni ki ma nommé kóolute gi mu am ci man bëgg naa dootul amati ci keneen kóolute gu raw googu ci man donc euh, lan la ñu waxante ñoom ñaar moo ngi koy jox gaaj et si c'est son candidat en 2024 aussi justement il faut que mu jox ko suffisamment de gage pour ñu mën a dem ci ci ci mais dama lay féliciter li tax defoo li tax nga def ko gis-gis defoo ko dem. oui les enjeux <laughs> sont ailleurs. <laughs> alors nëmbu roog mi neex daa donc la comprendre foofu Pape Djibril moo nga wax alors bi ci topp Pierre da Silva xibaar bu ñu nangoo la ci Walf Walf foree na ca député ya ni am na projet de loi boo xam ni ñi ngi koy euh, ndëxëñ biir assemblée. amnistie maanaam dañuy fànq lépp loo xam ne dañ ko toppee woon wala mu gàkkal Karim Wade ak xalifa Sall mooy ni ñu naan crime financier et économique am ñu ah <laughs> dégg nga Pape Djibril nee na moom ba Conakry la ko déggee te jamonoy élection ba am na paa bu fa demoon de ah xaw fa yàgg ah ñibbi si toog noppi kenn déggatu ko ah alors gis-gis boobu nu ngeen ko gisee amnistie pour Karim <clears throat> et pour euh, waaw man foofu li mu ko gisee déjà nuñ ko formuler hmm. yoo xam ne par exemple xalifa sàll ak yi loi d'amnistie hmm. du cibler ay nit hmm. day cibler ay faits oui ce tey jii buñ nee loi d'amnistie du sible rek xalifa Sall mais ak Karim am na ñeneen ñu nga xamante ne dina ñu def lu ni mel laaxaale parce que nu ñuy bindee loi d'amnistie dañuy wax ni les faits qui se sont déroulés wala de telle a à telle date waaw jamono bii ba mhm. jamono bii mhm. ont été amnistiés donc ñëpp ñu nga xamante ne def nañ ay lu moom ñu nekk ca biir xam nga ña ngi cee bokk donc ce qui veut dire que mhm. su ñëwee viser xalifa Sall ak moom ci loi d'amnistie na la wóor ne Aliou Sall dina nekk ci biir xam nga keneen ak keneen ko xam ne mu ngi ci régime am dina leen naaxaale ci ah, biir voilà loolu na ñu bindee loi d'amnistie il faut que ñu ñu la waaye mais d'accord ak ak miin parce que en fait en réalité oui mais en réalité. non non fait li ma bëgg a wax li ma bëgg a wax tey mën nañu wax ni par exemple gracier nañ Karim Wade. Hmm. grâce dañ ne gracier nañ Karim Wade. mais pas amnistie amnistie. waaw mais amnistie nañ Karim Wade. ça se dit pas. ay fee ay la ñuy li nga wax. non non ah li ma bëgg wax mooy. non d'accord naa. non non xam nga fan laa d'accord. non fi may. xam nga fan laa fan laa d'accordul min. Ah, c'est que li ma bëgg ko comprendre. Hmm. mooy que ni. que ni loi d'amnistie bu ñu koy def. xam naa loolu. li nga wax dëgg visé wuñu rek. Karim Wade mi ak ñeneen ñeneen donc y' quelque chose qui est caché mm. derrière. mais man foofu laa xawul d' a ak yow. parce que ah. pour man effectivement di nga yóbbaale ay. nit ci mais en réalité. Ah. ñii lay sa mm. c' est à dire que aujourd'hui l' esprit quoi. esprit bi ah. pour ñii la. je reviens si li ma doon wax. am vise visé wul Khalifa Sall pour le moment. Mm. c' est Karim il faut aussi ku la yee jox la ndékki bu la nee di nga añ bu lay boo gëm ko <laughs> actes yi gars yi di posé boo nekk boo xawee xool tuuti rek dafay am lu muy nuróol day xaw a leer sax ci sa bët mm. parce que pour man yoon boobu ñu ngi koy baliser maintenant ku ci ku ci romb troupeau bi <coughs> ñëpp mën nañu jàllal mais mais mais en réalité en réalité pour man affaire bi dafa am lu commencé mm. mais eggagul mm. te lu ñuy gën a dem ah on va se rendre compte que peut-être que ça va aller beaucoup beaucoup plus loin Papis gis-gis la mais je crois que lii li waru waru bett euh, sénégalais. Ah. parce que il y a un peu plus de deux ans trois ans je sais plus euh, président Macky Sall dañ ko interroger sur l'histoire de Karim ak Khalifa Sall avant même la présidentielle mu ne il faut savoir tourner la page c'est dans l'ordre du si wàllu wolof. Mm-hmm. mu ne lu mën a nekk la te da ngay boo waxee français saa waay attaqué. wax na ko fa tamit. France 24 maanaam da ngay da ngay il faut savoir mooy mooy fàtte jëlale xaw ma nu ñu koy waxee tourner la page. dès que président bi waxoon loolu dans ce contexte là bu ñëwee ba après la présidentielle parce que l'enjeu principal c'était la présidentielle en tout cas pour Khalifa Sall c'était des soubassements politiques on le sait présidentielle bi jeex na tàkk président bi gagné na cinq confortablement 58 pour cent il gouverne tranquillement il avait dit que c'est dans l'ordre possible donc bu ñu ñëwee gis lii bu mu jaaxal kenn maanaam waaw liñ ci bugg liñ ci jublu mooy véritablement que ce pays soit entre les mains de de de, euh, de, de politiciens et que l'objectif global c'est de réduire Sonko à zéro effriter son mm. électorat parce mm. que s'ils son amnistiés ils vont re ils vont jëlaat seen wàll ci nan bi allez Abou mm. non foofu man li may njëkk a ñaan décret d'application code de la presse bi <laughs> man laa gën a wax président moo ñu gën a yitteel ñu réorganiser waat assainiraat pour la suñu ki yor carte non parce que loi d'amnistie politique waaw boo xam ni ñun. ay yoon na leen àtte woon. Mhm. dañ ñu jaayoon ni ni comme forum civil ak gars yeeg ñoom maître Félix Sow nañu dafa am xaalis suñu planqué fële. def mhm. ay commission rogatoire. waaw li ñu dépensé ci procès boobu bari na trop. ñu génnee ci ay nit xamuñu lu xew. Mhm. donc leeragul ki ñu génnee nee na procès la bëgg. pour ñu réviser procès moom Karim Wade. moom yoon la bëgg pour ñu rétablir ko Khalifa Sall yoroon naa dossier benn yoon laa mës a gis mu mer mooy bi ñu côté pouvoir sàkk woon pour ñëw ci suñu pétition. pour ñu libérer ko mu ne bugg ko ba bi muy génn bugg ko mosul nangu loolu donc li mu bëggoon mooy nañ ko delloowaat ak am ak yelleefam dañ ko tooñ pour man bu ñu ñëwee di wax ay wax am amnistie ak ay loi di ko yóbbu lii nga xam ne mooy aalikalaj gi suñu presse bi ak suñu réseaux sociaux yi digital bi code de la presse carte de la presse beeg promoteur de la presse yi nañu ko régler parce que loolu mooy priorité jamono ji ci woon. Cheikh Yérim. amul euh, yow la sànni xeer. dafa am lu nekk ci calendrier bi loo xam lu doy waar la. xam nga Khalifa Sall. mu génnee ba léegi dafa noppi. article bi bu gëneen ci contexte boobu lay gën a crédible. toll xalifa dafa teengal affaire yi. Hmm. wax ni dafay nekk maire Dakar. di def ay communiqué. Hmm. di def lépp. donc contexte boobu article bu mel nii génn euh, dafay. kon yow gëmoo lii euh, am na lu ma ci xam mais li ak lii. méngoo mhm. et pas exactement ça veut pas dire que. Mhm. amul ay waxtaan. pour régler problème yi. Mhm. mais pas de mais li ma ci xam parce que euh, Karim Wade Karim Wade waxul moom dafa mos wax ni procès am dañ ko war a réviser. révision voilà. Khalifa Sall. révision wóorul dafa mos a wax Khalifa Sall dafa wax mos wax le mêmes choses. ni moom mosul demander grâce. et que moom dañ ko tooñ et cetera et cetera et que vraiment justice moo ko war a rétablir dans ses droits bref mais yooyu yëpp aussi mën naa nekk position de négociation mhm. xam nga booy négocier da ngay da ngay da ngay xàcc fu sori mhm. pour boo amee li ci lu dëgg doomu nga jël nga jël mais ay waxtaan moom mosul mësul arrêté parce que mhm. nag Sénégal il faut xam leen Sénégal kenn contrôle kenn kenn feewul ak kenn cest à diir xeexu politique mën na metti lool mais bu une heure du matin xasee ba jot ñii dañuy gis waaw ñii dañuy dugg fii ñii di génn fii maanaam ñii di jaar ci ay médecin euh, Ablaye Wade pour wax ñii di jaar ci ay fil Facebook pour wax ñii di jaar ci ay xaritu libanais euh, xalifa Sall maanaam daal réew mi boo bëggee dégg dëgg waaw boo bëggee boo bëggee dégg dëgg ah ngi waxtaan réew mi daal journaliste yu mag tamit dañuy dox ay tànku jàmm ci réew mi ay journaliste yu mag waaw loolu tamit boole leen loolu loolu dafa baax loolu dafa baax ah, dañuy dem <laughs> dañuy waxtaan ñu dem ci gis-gis bu mujj bi boor boobu yëpp dañ yi ñu dem ci gis-gis mu mujj bi aboo ngi aboo ngi commencé déconné <laughs> <laughs> allez bi dañuy sensibiliser vraiment parce que oui Charles dafa jël congé bàyyi ñu fi kañ ah jël na ay congé wam ñun deux ans ngi mënuñu jël congé moom jël na congé noppalu ji alors camion yi camion yi camion yi camion yi encore mercredi bi passé ah. mercredi noir ah. camion yoo xam ne rey nañ set juróom ñaari doomi aadama oh. am na ñoo xam ne ci axe Linguère maatam bii ñuy wax hmm. ñaari xale yu jigéen ñu génn doog a génn bees war a liggéey dem seen post jàngale Matam ca la ñu yam ñuy massawu njabootu ñi ci loru ñëpp deux accidents sept morts à Dakar fii la woon Pàkk Lambaay camion bu màbb la tamit foofu comme aussi à Linguère camion décompte macabre bi nag jusqu'à quand. may naa sama parole. Papis nee na du ci wax c'est vrai que bi fi Babacar Gaye mujjee ñëw rek c'est c'était ça le sujet on a on a fait jàkkaarloo. booba waaw mais problème bi mooy. oui bu euh, Cheikh Yérim Ba euh, dee ci tali. réew yi wàññeeku yépp d' abord teg def nañ permis à point. Hmm. loolu loolu dafa mel ni coïncidence bu doy waar def nañ radar. Hmm. pour xam vitesse yi. Hmm. kan mooy daw ak kan lañu war a sanctionné. maanaam daal boo nee nit ki permis à point nga am maanaam boo xasee ba am permis hmm. infraction boo def mën nañu rocc ay point ay point ci say permis <laughs> mais da ngay fekk nga xam kooku ak mën ko fekk fa mu dëkk nga ni malal oto bi muy dawal <laughs> carte grise bi gi tal tali gi tali bu mag xaw ma leen ciy bind moom mi ngi dëkk gis-gis la hmm? mais oto boobu dafay jaaraat ci tali bi ah, wala oto boobu bu ah, xasee ba àgg foofu du delluwaat ci tali bi localiser ma ni la kiy dawal ak fa oto bi dëkk mooy premier problème permis à point yooyu yëpp amul solo. ah permis à point amul solo oto non xamul tax amul point amul solo. waaw ah oto yee màgget. voilà. oto yee màgget oto yi daw ñoo warut a daw balaa ngay wax rek permis à point. balaa ngay sanction nit ki. sanctionné nit ki ah dafa mel ni nga jël nit jox ko fital solal ko ba mu fees ah ne ko tiireel après boo boo jamee kenn ma sanctionné la. Mhm. liy war a njëkk acte bi nga war a njëkk posé mooy lan moo war a daw ak lan moo warul daw. Mhm. sa oto bee macha allah nga gaare boo freiné mu am ABS. wala am fii fii oto yiy daw di di di traversé région yi dalay lay wóor ni en réalité du ay oto ñu war donc boo nekkoon euh, kii sax Hamilton sax ah yor munoo ko non c'est vrai Lewis Hamilton sax mënu ko contrôler donc avant ñuy wax waxu ay permis à point affaire yi nañu wax déjà ci oto yi nga xam ne ñoom ñoo war a daw ak yorul daw dëgg yàlla daw de mine pense que problème fondamental loolu la il faut que quand ñu respecter contrôle bi ñu def mu nekk contrôle bu strict parce que oto yi ngay wax yëpp camion yi ngay wax yëpp. ñoom ñëpp seeni frein lañ laaj. exactement problème mu frein. yi ngay dégg yëpp waa ji dafay dem ba frein yi lâché. exactement mu yëg bi am na kenn koo xamante ne moom sax dafa dafa dafa génn oto ba daw bàyyee bàyyee. bàyyee oto bi am pàcc lambaay bi biir Dakar oui. pour wax la ni visite technique bi je pense que foofu mooy. kii bi nañu nañu Pape Djibril Euh, def nañ ci ay sujet yu bari di déjà di jaale ñi nga xam ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan mais gis naa tey sax ci journal 20h bu TFM camion boo xamante ni tam ay nag la rey. 20 20 vingt nag. Mhm. enfoncé ci seen biir ci rey ci mhm. nag yu lu bari donc euh, encore une fois il faut sévir. Mhm. loo visite ah technique yi. c'est l'occasion aussi ñu waxaale ci. parce que tamit mënuñu ne dañu bëgg oto yu normal boo bëggee def visite technique nga am problème pour rang rendez-vous. en plus boo génnaatee ci tali bi policiers yi téye la fekk fee amuñu possibilité pour def ko comme ñu ngi jëm sur l'ère numérique ñu def ñëpp am ci accès mm-hmm. te ñu respecter visite technique bi parce que mën na wàññi lii ma accident camion yi no oto yi daw nànk daw nank daal nànk mais docteur bii moom xam naa mun nga ci wax gis gi yi comme c'était politique les camions qui tuent tout le temps docteur lépp la ñu war a a wax en tout cas il faut que contrôle bi soit très strict xam mm-hmm. naa gis oto yi waruñu daw. quel que alpha dañoo warul daw. bu ci waratul daw bu mu dawati ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñi ànd